Mbacke ah, sëñ Khadim laa àndal ànd naa koog sama sama rakk yëpp ànd naa koog sama jëwriñ yëpp dañoo ñëwoon rek waaw indi indi indi seen ndigal loo jëfe loo joxe kenn waruñu cee kenn waruñu cee man ndax li nu doon yéen a bu dul yéen Mbacke sunu sunu ndong taq suuf lépp yéen ndigal li ngeen joxe moom la ñu woon nañu ñëw indi sunu barkeelu ñu dem ñëwaat na te nu nu weesu ko liinu nu fi indi xeeb nanu ko bu nu sañoon. ci alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf Mbacke waaw moom day ani ani. sëñ bi ngeen sant bu baax juróom fukki mbooloo mi nag ba nga joxe ndigal la ñëpp ñëw baatin nag ci tege nag xam naa ne ndax lu bari ñëwaat waaye te xam naa ne kenn du des fenn ñëppay ñëw. ah waaw ñëpp a ñëw maa ngi leen maa ngi leen maa ngi leen maa ngi ubbi sama dënd rek. am tawfeex da nga am tawfeex. ku am tawfeex. Ah? ku am tawfeex seex nga nag bi may ñëwee. daf ma ne boo demee na nga ma yóbbul sama siyaar. wax na ma ko ba waaw waaye nee na bi ma ko dee damay yóbbu damay yóbbu addiya ji daf ma ne boo yeggee. Ah. nanga ma ko joxal sama siyaar. ah ma joxel ma joxel ko ko. ok la ma waxoon la ne. ni ma da nga maa ne woon jeexalal sa doole takk fa Serigne Cheikh. Mbacke loola laay def ndigal la nga ma joxoon ca laa ne. ah waaw jërëjëf. sama jotaay bi ah. ah. sëñ Saliou ak sëñ ah, ah. Béthio. ñett. képp loo fàtte lay wax nga dëgg jërëjëf. ñaan ñu ngi ñaan mu yàgg fi tëwër ñaanalal Serigne Cheikh mu yàgg fi tëwër. rek moom kay ne sëñ Béthio nag bisam ba da day ba sub démb la woon ba sub suba. te eh, cantam googu ñuy wax 17 avril daa dellu si. mooy bis ba mu dajeeg Serigne mooy te daan ko màggal. danaa ko màggal Madinatu Salaam. jënd naa samay nag ak samay gëlëm. Eh, dinaa danaa danaa danaa fa jàng alxuraan danaa fa jàng xasida ah, waaw waaw wax naa ko sëñ Cheikh ba mu jox ma ci ndigal ah, waaw ah, waaw doon jullit di taalibe rek rek taalibe sëñ Tuubaa bi tam nan doon jullit loolu rek lañ ñu digal rek nan yor it jikkoy taalibe jërëjëf nan it jikko yi am ñun ñëpp kenn kenn bëgg jërëjëf nag bàyyi jikko yëpp te yor jikkoy taalibe jërëjëf